fait beau temps à Dakar mesdames et messieurs mes chers internautes de Dakar Buzz bonjour bonsoir ça dépendra ci heure bi nga xam ne moom ngeen di seetaan interview bi tey maa fi nga xam ne moo di Lokman Choco alors je suis pas seul je suis avec koo xam ne c'est la su ma juumul c'est la troisième fois man moom ñuy waxtaan mais tey nag dañu am lu ñu lu spécifique parce que tey ñun <laughs> dafa bëri histoire sama grand <laughs> grand Assane Lo alias Tandiaye idole maa lay nuyu le grand <laughs> di la féliciter aussi. parce mhm. que di wax aussi ne yow rien à dire. Mhm. franchement RAS quoi yàgg naa gis say témoignages donc tey moom dañuy dem rek directement attaque. jeex na non tey nag du ñu mayante dara quoi. Ah, parce que tey dama la gis da nga bëri da nga bëri histoire. Mhm. je sais pas nag lan moo waral histoire bu bëri bi ak sorties yu bëri yi déjà lan moo waral loolu. waaw xam nga nag day am ay moment euh, waxante yu baax day am. defante yu baax jëflante ko dafa baax ci àdduna. ba nit ñi ku bëgg a déborder sax. xalaat ne ñi ngi waxante lu baax defante lu baax. nit soppi. waaye nit nit la kuy lekk suukar ak xorom. da ngay am yëg-yëg. di yëg lu tàng ak lu sedd. waaw nit nag day kontaan day mer. waaw loolu rek la ah. soo gisee fan yi sorti yi am. ñu ne dama bari histoire du bari histoire. parce que Sénégal xamuñu ku ko tooñ. ku fay lañ xam soo fayoo ñu ne la da bari histoire jaru ko jar ko. mais nag nit boo demee ba mu def doo au mieux. Mhm. rabu àll sax boo ko sësee ci mbir mu dal sa kaw. Mhm. sakkantuma ak nit ak noppam. Mhm. surtout koo xam kilifa la yori njaboot. mais mais mais yow à travers tes euh, tes euh, vos séquences ci biir série yi ci mel ni double vie yu ci mel ni idole ak yeneen ak yeneen parfois rôle yi ñu lay jox personnage bi ngay incarné parfois dañ naan sax nit ki nga jox ko dara nekk te noonu la mel et dañu remarqué toujours vous étiez jovial. double vie da ngay kafre mbalak teewul yaa ngi def idole lañ la gën a gisee tamit nga kafre free bien vrai que amoon nga sooy xool bien déterminé alors bu ñu gisee ngay kaas dinañu jaaxal lool lool lool lool. waaw kon loolu mooy wane ne rek am na lu tax. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que loo gis ci àdduna rek mu yëngut mm-hmm. la ko yëngal moo moo ko ëpp doole. c'est-à-dire que mag ñi dañuy wax ne ku génn ci néeg di pàkkar ñi. kay tëgg nga ci biir. c'est vrai waaye ku génn ci néeg di jooy. la ko dóoran ci biir. mais nag jooy leen di gis waaye loo ko dóor kenn du ko ko gis d'accord ñu am mooy ñun exemple que dañu tooñ. Mhm. dañu tooñ mooy euh, man dañ ma tooñ. Mhm. te ñi ma kenn ku dul Evenprod. Evenprod bi ngeen defal ak saison une deux trois cinq ba sept. oui mais comment se ñu tooñ leen waxoo leen bàyyi ba ba après septième épisode bi ngeen di doog a wax. waaw xam nga euh, li li li li mag ñi di wax naan. tant que yoon jeexul waaxu si lu jeex mhm. te koo xamante ni yàlla dafa def da ngeen a dëkk mhm. dëkkandoo bu rafetee rek mhm. jàmmay am waaye bu demee nag ba leneen rax ci rek ah jàmm mën na ci bañ am saison deux trois quatre cinq six sept tak mu am problème rek c'est parce que am na lu tax parce que aussi il faut tamit nit ñi di bàyyi xel li may faral di wax ma ne bu nit waxee dara bu nu seet la mu wax ba tax ñuy ŋàññi mais nañu seet lan moo yëngal ba tax mu wax parce que aussi dara rek tëbul tëb rek waxa ah. mais li tax mu wax nañu mën a xool lan la mag tey bu naanee ndox mu tàng suukar si moo tax dëgg la kon ku respecté saison une deux trois quatre cinq six ba sept ba six nga fay ay nit dem ba sept ba huit ah fayagoo di da ngeen a commencé tourner huit mais non huit jot naa ci tourner ay quelques épisodes d' accord léegi euh, problème bi fan la démarré exactement ci ban saison le problème yi démarré. mais saison 7 bi fin saison euh, saison 7 pour dugg 8. moom lañ moom la commencé na ci euh, fans yi ci ñi seetaan. commencé na ci Sénégal ak africain ak monde bi yëpp. c'est quoi le problème dañ leen a booleetul ci séquence yi wala dañ leen amal problème mu wala daf fekk moom moo mënatul a def ay respecter ay engagement am c'est c'est quoi exactement. bon man je dis pas moom parce que quand tu parles de moom ça dire que. Euh, je parle l'entreprise en fait. l'entreprise en voilà. Euh, euh, la personne morale en fait. voilà cest mm. l'entreprise. Mm-hmm. moo ñu woo. Mhm. moo ñu signé contrat. muy Even Prod quand yeah mhm. mais c' est non tenu respect contrat boobu noonu. Mhm. moo waral acteurs yi di wax. d' accord contrat bi duñ ci dugg di ci biir. mais du ñàkk am na loo xam ne buñ nee contrat li ci ëpp solo mooy masse salariale. Euh, liñ leen doon fay dañ leen ko fayatul wala dañoo dañoo xaaj paiement bi wala dañ leen fayatul lan la. waaw non duñ ne fay fayatul nu parce que suñu xaaj la dinañ dinañ ñu ko fay. ci nii wala ci nee. li indi li yëpp du lenn lu dul manque de respect bi parce que manque de respect su ma koy wax mooy. ñoom buñ la soxlaa léegi dañ lay woo jot la ci saasi. yow soo leen soxlaa di leen woo téléphone ñu la jël. loolu kañ la commencé. mais yàggu la ah, yàggu ah. bi ñu commencé tourner euh, infidèle ba ñu war a commencé di tourner saison huit bi. Mhm. ci la ñu jékki-jékki acteurs yi moom ku ci woote doo leen jot moom wax dëgg yàlla. mais pourquoi mu am problème ci saison 7 bi alors que ngeen commencé tourner saison 8. non non non loolu nag ñu bari xamuñu ko en fait saison saison euh, Evenprod d'habitude suy suy tourner série saison yëpp 28 épisodes lay am. Mhm. norme cinématographique bi quoi la koy def 26 27 comme 28. après dem saison beneen saison mhm. donc du coup ñun saison 7 bi. Mhm. on a fait presque cinquante et te yëguñu ko parce que dañuy tourner rek quoi. parce que ah, ok d' d' accord voilà comme ah. boobu dugg na Wido. Mm-hmm. donc Wido la dugg dugg bi mu dugg Wido exemple. tax na Sonatel moo mm-hmm. signé ak ñoom contrat. Mm-hmm. donc Sonatel xamuñu lan la Sonatel wax ak ñoom. parce que aussi c' est important. nga am ay acteurs yu mag. nga leen di tourner loo série. engagé wu ak société boo xam bu mel ni Sonatel. toogal nga woo say acteur ngeen waxtaan. parce que aussi acteurs idole yi. bokk ñoog acteur infidèle wala acteur monsieur. ah non. c' est pas pareil. c' est pas pareil. ku kenn du wax. donc yu mel noonu su amee woowal les acteurs. donc yéen da ngeen a jékki-jékki nit ñun ñi nga xam ne su noonu euh, ce sont les personnes qui regardent ni ñu ko yëgee ngeen ko yëgee. ka dem na vidéo ñoom sax ñoo ñu gën a xam man des fois damay gis benn waaye joo xamante il travaille pour la Sonatel di ma wax yoo xamante ni man en tant que acteur comprendre ma bi ñu signé vidéo ñoom waxuñ ñu ba tey signé nañu vidéo danoo xëy di ko dugal ci plateforme jox ñu genre euh, lien ne tas leen ko ñuy tas mais am ñi am Apple du ñu mën a dugg ci biir. Mhm. au début mais euh, maintenant. gars yi non léegi parce que dernière minute la. Mhm. ñun ñu dem ba suñuy fans di ñu mere. Mhm. di saafoonteeg ñun di wax de yoo xam te dem nañu suba après buzz bi idole yoroon amatu ko à cause de Wido. parce que dañuy gis ku fay. mais est-ce que moom xoolul propre intérêt mais loolu laa lay wax nag. loolu moo indi problème bi. parce que moom xalaat na ne war na mën a gagner mais ñeneen ñu sóoru leen. te booy seet dans tout ça acteurs yi ñooy patron wu producteurs yi sénégalais yi dañuy réeree mbir loolu. Hmm. parce que ñun ñoo tax ñoom ñuy am xaalis. d'accord dëgg la ñoom ñoo initié bind. Hmm. mais li ñu bind moom moomatuñ ko. Hmm. te sans yéen bind bi du am njëriñ. sans ñun bind bi du am ñun. parce que man en tant que Tandian. bi ne ci kaso bi. di délirer. di def comique di déconner. réal bi mënu ko. scénariste bi mënu ko. kon jël. Mm-hmm. c'est ça le problème. alors léegi léegi lan la est-ce que jot ngeen a déggante ak ñoom wala dañ leen duñ leen fay wala fay bi mooy yéex sànq ñëw nga danga leen di woo jotu leen euh, naka la demee acteur yi yéen est-ce que déggoo ngeen seen biir ba dem toog ak ñoom consulter wala ñoom ñu woo leen ne leen nii la demee. non loolu nag mooy problème bi xam nga man je vais tout dire. Mm-hmm. dañoo amoon benn euh, groupe WhatsApp bu tudd. Mm-hmm. Idole Family. ci dans Idole Family. acteurs yi ki nekk. Kalsooma daal moo nekkul ci. Euh, waaw ci euh, groupe moom doxul ci yooyu. Mhm. les groupes bi dañuy saafonte di kaf di ree mhm. ci la ñuy wax yenn yi déconné yi et tout info yi fa lay jàll. Mhm. suñu premier paiement tafa fa la taxaw ne gars yi képp kuy acteur convoqué dañ la demee ni nga ñëw jël ci seen chèque. ñëpp kontaan saafante ñu dem jëli ko mu tombeek 31 décembre. bu 2019 ñu dem tourner di tourner muy neex ñuy tourner ba 2020 bi dugg léegi nag biñ dem ba ci biir. mu am benn stand boo xam te ne tourné nañ ñu baree baree bari ñu taxaw taxaw boobu ba tey ñoo waxuñ ñu lan la ñu xëy suba gis ñuy publier infidèle ah bon tak di woo yenn acteurs yi di wax yenn acteurs yi bañ. réglé guñ suñu côté série bi eggagul ñu xëy acteur yi di woote ñu leen di non toog leen toog leen toog leen toog leen toog leen ok ñu dem ba ci biir nag mu commencé sérieux man à chaque fois su ma woowee Cheikh le comptable Cheikh faa fee di mu ne ma non grand ñu ngi ci yéen. parce que moom moo géré contrat yi. en même temps xaalis bi ok ñu dem ba ci biir Cheikh boo koy message un du la tontu je l'appelle il décroche pas nekk en communication nga di ko woo du la wuyu su paree ay 23 heures nga koy woo téléphone mu tiit jëpp naan la waaw mais grand bi waaw maa maa ngi réunion je te rappelle 23 heures day sa kër donc ñun on sait léegi nag loolu du man rek ñu dem ba ci biir. acteurs yu bari di ko wax ci suuf man nag li ñuy mën mënu ci suuf ma yégal ko ci kaw. mais est-ce que moom jot woo ngeen la personne. ñi ko woo ci acteurs yi bari na te du leen répondre man musuma ko non je ne l'ai jamais appelé je ne l'ai jamais envoyé un texto tax parce que man Ibou euh, dafa am lu ñu séq ma ak moom séquñu xaalis ak contrat de parce que man je respecte les normes je suis dans une agence de communication publicitaire je sais comment ça se passe du ma ñëw rek bàyyi moom ka fal rek ci moom. moom laa topp nag ba fii woo naa ay nit ñu nekk ak moom woo ko ne ko fayal lakk gi répondrewul ba tey mm-hmm. ah bon mu ne mu waaw sama xaalis maa ko liggéey liñ ma ameel bu ma leen di woo téléphone jëluñu mais non xaalis la bu takku donte li may wax rek donte donte bu doon cinq cinq cinq cent francs sama xaalis la waa non man salaire xam nga doo ko divulguer mais salaire la parce que aussi c'est un gagne-pain salaire la baal ma sa bul tax gars yi kar ma fii. d'accord léegi ñoom euh, moom moo ko mhm. ba dernière minute. mu ma ànd ak sama benn collègue ci oto bi ñu wàcc di dem. mu ma woo ko mu takk ma haut-parleur ko fekk dañ doon dawal ma ne ko waamee doom day fa affaire toll mu ne ma grand tey la mercredi chèque bi saye jeudi vendredi xam naa dinañ leen woo ngeen jël seen chèque. loolu ku ko wax mag muy wut xaalis nga amel ko ay xaalis bu bari wax ko loolu lu muy def du toog di xaar vendredi ba jot ok ñu bàyyi mu sedd samedi dimanche lundi ñu xëy di kow woo jëlul mardi jëlul semaine boobu à chaque fois pendant un mois du jël du faale kenn te boo ko woowee ci beneen numéro bu décroché boo ne allo rek mën na la waa je te rappelle problème léegi nag comme woo nañ ko ci ruq woo ko ci néeg woo ko fu ñu bâche woo leen fu ne pour ñu wuyu ngeen négocier euh, non non gisuma ko mais j'ai appelé Papa Thiar Thierno woo naa ko wax naa ko lu fi ne woo naa aussi ndeysaan euh, soxna musaa Gueye je l'ai appelé on a discuté maak moom mu ne ma bàyyil dinaa ko gérer yooyu yëpp c'était pour dox ko mais duma ma woo Ibou Gueye dëgg yàlla woo ma Ibou Gueye pourquoi yow exactement dama après dama quitté groupe boobu parce que man dama quitté li tax ma quitté groupe boobu mooy dama ci bàyyi benn wax na leen écouter comme mun leen leen woo téléphone jot leen léegi groupe baa ngi nii te yéen a dégg mais wax leen ñu li xew tontuwuñu ñi ngi ci group bi tontuwuñu ñett ñoo ci wax ma dama mademoiselle Seck moo ne moo way effectivement dañu war a fay grand laay wax ak booy malik Malick tamit bind wuy ak taa alima ne way il est temps ñeneen ñi binduñu waxuñu mais après di ma woo ci suuf naan ma way grand tu as bien parlé tu as bien dit ma ne leen non man waxuma pour ñu fay ñëpp waxuma pour ñu fay ma man dog mais man naa nekk saraxu jàkk ji ba après bu ñuy fay ñu mën leen fay parce que li ñu ameel dafa bari dëgg yàlla. donc du man rek ameel nañu presque bon je dis pas tout le monde. ñu nekkoon ci série yi doon ñu ngi waaw dañ leen a compal. waaw peut-être am na ku ñu woo ci ñoom ne ko ñëwal nga tourné ci lii mën na leen fay ma sama alal bële ñu ne ko non cest à kon nañ bàyyi mu sedd ñu ñu éliminé ko. ah oui parce que bëgguñ mu wax ci. xam nga dans tout ça soo gisee ñu wax waxuñu pour mettre mal waa Evenprod ak nit ñi déedéet seen fans yi ba tey dinañ leen bëgg. mais mais xam nga luy problème bi mooy manque de respect bi notoire bi ñu am envers les. les les acteurs ak les actrices nga xam te ne ñoo tax tey ñoom bu ñu amee tey alal ñun ñoo tax. parce que su ma euh, ngeen wax euh, koo xam ne ci gagne-pain lay défendre. Mhm. ngeen génn mais si man loolu tax ma wax de man bu doon man donc garaawul de sa ce que xam nga ni bu doon man rek man bu doon man rek mënoon naa dem bureau Ibou Guèye Ibou c'est un frère mënoon naa dugg even point even prod ba tey su ma duggoon man je suis choyé là-bas. damay dugg na leen eh sama morning dañ ma koy fay Cheikh même m'a appelé histoire de me grand yow après dinañ la régler sa morning mais non, ah oui il m'a par téléphone. maanaam dañuy dañuy benn yow ñu régler sa barki borom Touba li lañ ma wax mais man may gor boo xamante ni non duma wax ci mbooloo di lekk ci suuf hmm. jamais comme déclaré na guerre ba pare xaw ma ndax loolu ñu ma wax yàggul déedéet. déedéet c'est bien avant sortie bi ma bañ loolu parce que mënuma engagé xeex ba pare retourner di lekk ñoom ñu may fay ma retourné waat ñu naan ma alors leen noo fay nañ ma xaw ma ñoom lan moo tax ñu may defal loolu mooy dama ko bañ waaw hmm. ah, dama ko bañ am na acteur bu ñu génne bu ñu indi assignation parce que na 4 cinq 6 mois fayul am na actrice boo xam dañ ko yóbbu euh, police mu woo billaay walaay talaay bu mag mu woo ma téléphone grand loo man a waa mu ne ma léeg léeg li barki borom toi ma def intervention jox ma numéro ndaw soosu ma woo ko xamal ko ne ko yow fayuñu la ma def loolu waa man dunduma ci lu dul man dunduma ci nag xaalis dunduma ci lenn lu dul dëgg fa neex yàlla am naa ci ay soppe li ma ci dund lu métti mooy man sama soxna ak sama doom parce que aussi sama zone dafa yaakaar ne dañ ma fay ma lekk à chaque fois su ma nee léegi laa da nga dem tournage di guddee ñëw sama doom xëy benn suba ne ma mais pas nu mu demee noonu quand même yow diggoon nga ma ay léegi lii xanaa nag idole war na fay parce que mës ba pare mu liir infidèle ne ma am ngeen tant de publicité pas nag xanaa nag gars yi war nañ leen fay loolu nag sama marqué et sama fait mal parce que saa yu ma nee fayuñu ma ñu naan ma si ñi wuñ ma wax ne ma waxoo dëgg mais dañ koy dund waaw c'est ça le problème loolu moo métti ah loolu moo métti waaw loolu moo métti. Euh, mais mais est que yéen contrat lié na leen yéen seen biir yéen. mais si cest que nu nous au début en fait c'est un contrat dangay ñëw indi ñu tegal la nga lire signer. amul contrat moral. si. mooy saison huit bi nii presque ak u bi. dañu wax que jàppoo leen ni ñoom dañu gis ni contrat moral ngeen signé ak ñoom euh, saison huit bien vrai que en termes juridiques c'est vrai que contrat moral ça existe si vous avez des preuves palpables mais est-ce que jàpp ni parfois yenn acteurs yi dañuy bëgg rôle jouer jouer jouer ba duñu comprendre comment ça se passe exactement les contrats. ba du acteur du acteur idole yi de peut-être acteur yeneen yi waaye du acteur idole. acteur idole yi nee naa la idole ay idole amu ci ay naxa naxa yuy taxawaal wala ñoo xam dañuy fecc sabar rek ñëw tourner rek jouer déedéet ci bureau lañ leen di génnee ci école yi ci place yu baax yi idole waa wax de xaw ma yeneen série yi nag mhm. mais idole moom acteurs yi ci nekk yëpp ñu ay naxa naxa déedéet d'accord donc pourquoi pourquoi kon ngeen euh, demoo leen juridiquement porter plainte wala ngeen dem au niveau de la justice pour pour pour suivre cas bi nu mu demee. mais non doo ko doo def doo ko def xam nga presse moo gën a gaaw et puis presse xam nga ni mu men bokkul ak euh, police wala yooyu. mais gisoon ni police moo gënoon waroon a. gën a gaaw non non police a gaaw mais après du indi day indi leneen parce que aussi ñoom dañuy liggéey ñu dañuy liggéey. Mhm. monsieur ma laaj na ma yow boo xooloog ñoom est-ce que yeneen producteurs yi. duñ la ragal mën na leen ku ma ragal parce que da nga dëgguwul waaye ku jug pour fay doom doo am ak kenn affaire doo am ak kenn problème contrat moo ñu luyee même si c'est verbal ou pas xaalis baa nga fa tegu parce que ñoom danoo jóge ci location foo xam ne il paye même pas 300000 dem luyee almadi almadi ku ko xam-xam ni néegu almadi 2 mètres carrés mën na nekk 200000 par mois bokkul ak néeg yi fii jënd ay oto yu bees di créer ay euh, série yu bees mm. a koy c'est ça le problème. yéen léegi euh, bi nga defee sa sortie bële. Mhm. amaat nga retour. Euh, retour bi ma am mooy woowaguñ ma parce que man xam naa ne moom duñ ma woo moom ne ma noo kaay ñu jox la café jox la sa xaalis mhm. mais dañ ma ñaan rek sama xaalis buñ ma koy fay buñ ma ko joxul tamit nañ ma ko dugal ci waaw transfert d'argent yi. Mhm. waaw moo gën waaye. mais est-ce que am na ñu commencé woo selon des. waaw waaw xam naa nag am na nag ñoo xam dañ peut-être que leen woo parce que am na bon ay écho ah, leeru nag. Mhm. xam naa ne a woo mhm. parce que topp ma ko ah. man ba ma ci waxee laa ci pare parce que xaalis boobu léegi dama ko def asaka yéene. man je pense que xaalis boobu sax bu yàggee dama leen koy may. Ibou woo na xol bu sedd guy non Ibou woowu ma te du ma mos a woo. parce que bi ñu amee relation bu liis. Mhm. boo leen di woo duñ jël. kon doo dem sotti ñu lay woo. gars duñ ko def moom. sa génn yi ngay génn nii est-ce que déggoo nga ci yenn acteurs yi. Oh, non man nag defuma ko pour déggoog ñoom ah. mhm. man je l'ai fait parce que lu ma denc man la mu may sonal ma war ko génne. mais mhm. c'est pas pour faire plaisir aux artisans. Mhm. non sama yoon newu ci ñoom. non non non. mais yow bi nga defee ñoom sa retour bi am nga ñoo ci jot. ñoom ñëpp war nañu presque. di la remercier. bu baax du ma fenn. grand li ñu li ñu waroon wax waxal nga ñu ko kon ça veut dire que ñoom lu ñu maanaam. seen lañ mi seen lañ ci quoi. merci beaucoup. comme man may nagu jàkka ji nag man may wax. <laughs> alors génn ci idole pour gisuma la ci yeneen série lu tax loolu. waaw parce idole moom ma xaw a loo. mais maa ngi tourné nag. maa ngi ci benn mais gisoon naa la salle d'attente ana ngi ci parce que ci wax mais am na yeneen série yu mag yoo xam te ne bientôt affichage yi génn. Hmm. bientôt mu daw télé maa ngi tourné lu mit sax. Hmm. ay. <laughs> kon xaalis bi gën a duggaat. mais bii baal mais ñoom jéem nag jéem ñu la woo ci ay infidèle wala ay mërs yooyu euh, waaw amoon naa ci place mais xam naa peut-être dañ ne grand bi comme dañ ko bu buñ ko buñ ko buñ ko woo te buñ ma wowoon du ma tourné tant que fay ñu ma bële infidèle yi tax joué ci bon je suis pas mesure pour dem tourner ci carrément parce que fay ñu ma woon ci fële mais contacté woon nañ la bon pas contact direct nii mais grand préparé waaw ok grand préparé waaw xam ñun moom d'habitude ak ak waa Evenprod. day jékki-jékki rek Papa Thiel woo ah, nga tourné dugal naa fa ay nit. ah bon si am na ñoo xam ñi ngi tourné ci acteur man man maa woo Papa Thier ne leen casting bi ngeen def jëlal diw ak diw mu dem def ak casting jël ñooñu macha allah. ñu ñoom ñu ngi fayee ko ñoom. ah non xam naa moom non man nag toppatoowu ma loolu mais xam naa ni comme ña nga fa. Uh-huh. kon kon ñu ngi ci jàpp. nga gisee série yi léegi ni gaa yi di recruter les mannequins les danseurs les artistes bon artistes je parle pas acteurs yi des musiciens whatever euh, naka nga gisee loolu. ni ma ko gisee mooy que yomb na trop nag parce que léegi moom Sénégal euh, ñëpp acteur lañu. Mhm. parce que ku ci def benn figuration sax. Mhm. def sa bop star. def sa bopp star. dafa garaaw boo génnee non artiste la mhm. non. fonante yéeg raayante ci biir film série yi nga xam ne gaa yi ngi koy kaas noo ko gisee en tant qu'acteur yow. bon ça dépend tamit ci parce que tamit loolu wax ci day nit xam <laughs> foo fonante raayante. dafa doon loo ah, xam te ni wax yow da ngay si idol nit uuf na sax kaw sa biir. waaw non ne. Ah. man foo leen foo mhm. réew ñu ne. Mhm. doo ko fi wax. Mhm. da nga koy dundal te <laughs> parce que parce que réew mi. Euh. Ah. da nga koy dundal ci sa self. bari na fi ñu fi foo leen teg raayante te boo feeñeete lañ naan warul def lii de. am na benn maison de production bu mag bu ñuy wax Mbarodi. waaw da ngay xool acteurs yi mag mu ñu woo leen. yow foo toll ñoom. liggéey nag ñoom. anamu. mooy euh, pour def bañ a def publicité benn tee la bu ñu ma jël man Pod ak euh, Marichou. ah benn. benn spot publicitaire. non gis naa spot boobu mais série laa bëgg a wax quoi. non non yàlla parce que am na ci ñoom ku mënoon naa préparé pour sol nañu sama kii yooyu wax dëgg fa neex yàlla. mais li ma euh, calcio ma di wax rek. Mhm. benn taat mënut a war ñaari mbaam. Mhm. moom ndeysaan yàqal nañ ko moom it aussi parce que woon nañ ko ci série yu ne. wallaahi azim du caaxaan mu ne leen man idole rek. te idole ba tey fay. mais est-ce que instant bu ñu leen fayee ñu waar leen di ngeen dem di ngeen bi baax non man bu ma fayee euh, baax na euh, vraiment. dootoo joué waaw franchement bàyyi naa. d' euh, dañuy ñëw ci actualité lu ci mel ni jaar Diary saw mu nekk mais élève au Sénégal mu réer foofu ca Paris gars yi ñu ngi ci recherche ba léegi donc ñun à Dakar ba suñu émission bi ñu dañ ciy insérer question yu ni mel pour gars yi mën a jàpp ci communication de recherche bi naka nga jàngatee lu ni mel. lu yéeme. Mhm. lu doy waar. Mhm. lu tey pourquoi parce que euh, riir ci dëkk tubaab hmm. ci nit ku ñuul hmm. boobu ba léegi dégguñu ne gis nañu kooram ou hmm. na ma sénégalais yi baal waxuma ci leen lu ñaaw nag parce que xale boobu man maa koy xam sax bi mu réeree nii dëkk fa ne xel ci info yi mais nag xel day jëriñ dul xalaat mais boo toppee sa xel rek li muy xalaat mooy que xale bi ah doy na waar daal couvre-feu bi ñu def ci jamono bi ñu toll nii nan la ko. waaw baax na ci parce que femme yaa ngi tàccul seen jëkkër yaa ngi ñëw heure normale. <laughs> mais par rapport ñu gars wax heure de descente yi ni muy saturé. waaw non na nag métti na trop parce que président ak euh, ministère yi gars waroon nañu xalaat tamit yoon yi. Mm-hmm. parce que yoon yi dañoo nekk chantier. Mm-hmm. oto yi aussi dañuy yokk seen i bagages. métti mm-hmm. na trop ci population bi. d' accord parce que yonent bi xam nga lan moom euh, la Macky Sall mi ngi mi ngi may suivre man je sais que mi ngi seetaan Dakar Buzz di seetaan lépp. Mhm. monsieur le président. Mhm. dama bëgg rek nga desserrer un ci réew mi. 90 mhm. pour cent des sénégalais dañoo sonn. seen ndigg rëq na te ku seen ndigg rëq nga changé doxin. réew mi toj na. nit ñi xiif nañu. nit ñi sonn nañu. dañuy doxee sax nag. waaye lu mënta ñàkk la rek président. deseereel rek dëgg yàlla yaa ngi liggéey lu rafet macha allah ñu ngi koy gis waaye boo deseeree dina baax lool tey yërëm tey jéggale soxla nañ ko trop. kontaan naa Assane Lo. maa la gën a bëgg ci waxtaan bi. parce que tey objectif bu bu bu précise laa doon mooy ñu waxtaan ci problème ak sa sortie yu bëri yi. Mhm. ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet. waaw di ñaan tamit ndeysaan dama suivre démb El Hadj Faye bi daan way sàmmi naa mhm. pour xale yi ko xamul. Mhm. Viviane sax jël na benn wayam way ko. dama benn sortie mu def di wut ndimbal. c'est un artiste. Ah, El Hadj Faye El Hadj Faye suñu mm-hmm. père la. Mm-hmm. di wax sénégalais nañ ko bàyyi xel. Mm-hmm. lenn dong laa leen di ñaan. boo demee ci YouTube ngeen xool bind El Hadj Faye histoire am ngeen ko gis. bu sénégalais bu nekk defee deux ci orange money boobu. Ahmadou Bamba laa dina tane dina am xaalis. parce dafa am problème euh, euh, santé. ak problème fu mu dëkk. doy na nag yàllaay tegee nattu. Mhm. li di ñaan sénégalais yi. Mhm. bu dee cent franc ci orange monnaie boobu. Mhm. sur dix millions de sénégalais. dina faju dina kër. c'est quelque chose waaw lu di ñaan la rek. c'est quelque chose vraiment. atia euh, man mm, kontaan la gën fa laay jaaree jaale ki xam ne moo di dix mille problèmes. Oh, ah, ñu libéré ko mu ñëw fekk yaa am génn ñun waa confrontation dañu koy jaale parce que suñu xarit la ñëw na fa à trois reprises. toute la famille de 10 000 problèmes. merci beaucoup. Euh, merci beaucoup mon frère kontaan naa alors rendez-vous prochainement ak Kële Ndeye Doon sur Dakar Buzz merci beaucoup jaa ngeen jëf bye bye.